dem fi Abidjan eh, kon kay amoon naa ay fekkee ni rek dama laqatu u daw Thaïlande ku dem Thaïlande visa passeport eh, tampon aéroport aéroport kon mission officielle équipe nationale du Sénégal comme ni Mauritanie biñ Augustin Senghor sama lañ ci ministère des sports jot nañu liste bi avion bi ñu waroon dugg avion wu état Sénégal la moo ko affrété équipe nationale du Sénégal bëgg bëgg daw dana jëm ci avion Sénégal ci ci délégation wu Sénégal am ci biir délégation bi cinq agents de sécurité yu nekk BIP ci BIP lañu ñu du fédération moo leen di ñu nekk ci délégation bi ñun ñëpp ñu ànd stade bu ñu jógee stade ñu dem hôtel ba ba digg guddi deux heures du matin trois heures ñu ne dañ dem aéroport biñu àggee aéroport man ñi intendant ñu yore bagage yi wan ma ni jox nañ ma suma passeport jox nañ ma suma carte d'embarquement ma ñëw ba ci police ñu jël sumay empreinte bàyyi ma dem a ah, merci bon voyage bi ma demee bay traversé ci la ma benn policier ñëw discrètement nag ak correction nag wax dëgg yàlla ne ma monsieur le ministre dañoo am na lu ñuy contrôler ci sa passeport ma jox ko 10 minutes après mu benn lieutenant ñëw monsieur le ministre est-ce que am nga un passeport diplomatique ma ne depuis le bi ñu wàccee ci nguur gi laa passeport diplomatique amatul mais c'est un document personnel je le rappelle c'est un document personnel il n'y a aucune obligation de restitution du passeport man vous mais ku defar passeport am ordinaire di ci vous kon loo may suma passeport diplomatique mu ne waa loolu sax du loo important mais dama la dafa am opposition pour nga génn réew mi ah man waa léegi waa d'accord comme que état de droit la ñu nekk mën ngeen am ngeen mën ngeen ko wax mais ci fan ngeen ko sukkandiku te yow instruction bi nga may wax dañ ko war a jox kayit soo ma joxee kayit ma xool ko mu ne ma non instruction la ma ne ko ah mais instruction dafa am kayit nag même bu ñu la jox instruction de leen a diw ak diw bu génn réew mi te nag man ma ne ko moom leen naa man ci sama bopp du rapport OFNAC du rapport Cour des du rapport IGF du rapport inspection générale d'État biñ passation de service bi ma def def nañu lepp signé te ba inspection générale d'État defuma observation ci li nga de def nañ ko ci passation observation yi ma envoyé tontu tournage, ci c'est des observations de forme kon man en ba ba gisuma fuñ ma convoqué fu fuñ ma oowee ma monsieur le ministre la démé après ne ma ngi boobu laa ko gëj gis ma ne nag man am naa responsabilité am naa poids ci fédération sénégalaise de football ci joueurs yi joueurs yu bëri ci sama kanam lañu ñu commencé màgg depuis 17 ans ànd ak man ba tey su ma leen yéegalee loolu ci balaa ñuy yéeg ci avion bi dana indi coow dana indi jeexa jaaxa te man le Sénégal est au-dessus de tout Senghor bi mu ma jotee ak encadrement bi ñu bëgg a xam ban position la ñuy am may leen bu ñu am benn position. dem leen ngeen voyage ci jàmm man bugguma man sama personne ma tax ñu perturber équipe nationale Senghor ne ma en tout cas xamal ni football bi ak sport bi sont solidaires avec toi man leen xam nga li ma bëgg mooy na Sénégal gagné te moo tax ma toog seetaan match bam jeex Sénégal gagné ma ci sant yàlla kontaan ci mais loolu moo am bi mu amee ma ne man su ma ci defee bruit à la veille du match mu am coow ma def ndànk mais bi ma gisee nag.

man danaa daw bàyyi dëkk ba e kuy daw moo kuy def boo defee dañ lay won lii nga def kon par conséquent loolu moo tax man ma jël suma responsabilité bopp ma ne damay aux journalistes yi toog ak ñoom wax leen sama version nii la demee kon ñoko ko muy ay cadre yo xamanteni Abdoulaye Seydou Sow maire ba Fouta Lef ak jëmale ci ñi nga xamanteni moy le nouveau régime de Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre diggante ñi nga xamanteni ñoy ancien dignitaire dignitaires le ko dal ci ñi di nouveau tenant du régime bi doon na daal li nga xamanteni dal li commencé xéñ do dara lu règlement de compte ginnaw affaire la job gis nañu ki di Abdoulaye Seydou Sow momit ñi interdire ko mu daal di génn li nga xamanteni moy réew mi en tant que deuxième vice président fédération sénégalaise de football mu waron dem fofu ci Burundi ci match bi waron dox ci équipe nationale bu Sénégal ginnaw loolu lañ ko bloqué fi nga xamanteni moy aéroport euh, bu dias ci bir loolu nak police frontière yi ñom dal ñom ñoo coursé wu jëmale ko dal ci ben interdiction de sortie moom midi ancien ministre de l'urbanisme du logement de l'hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow dafa choisir démb foofa ci permanence su APR dal di tenir ben point de presse pour expliquer que li nga xamanteni moy mooy passeport passeport bu simple dem na fi Thaïlande jógee foofu dem ci yenen réew yo xamanteni ne muy Maroc dem fi Gambie dem fi Abidjan té boobu batay dawul donc tay mu soit fi ci réew mi kon mom su bëggon daw yaaka naa ni kenn du ko gis donc ben délégation officielle officielle la boo xamante ne lii di fédération sénégalaise de football ginnaaw nag bi nga xamante ne dafa doon loo xamante ni dafa absurde moom mii di Abdoulaye Seydou saw bi mu poursuivre daal li nga xamante ni daal ñii di ay lieutenant police bi ñoom ñoo ko interpellé foofu ca embarcation ba ginnaaw bi nga ko annoncé daal benn interdiction mu génn li nga xamante ni mooy territoire bi doon na li nga xamante ni tey dafa cherché wul benn yoon daal di daw ginnaaw nag dina xeex politiquement jëmale ko daal ci dernière minute pour honneur am ginnaaw engagement am jëmale ko daal ci li nga xamante ni ñu ngi koy bafoué lépp loo xamante ne manqué nañ ko ci respect mënuñu ko essayer daal di koy humilier jëmale